nit ku bax nit ku innocent surtout innocence am donc euh, bu mu ñëwee fii lay ñëw tek lepp sama loxo ne ma dama bëgg ñu def tournoi comme ça wa dëkk bi yëpp jiss ci seen bop mu tek lepp sama loxo sans contrôle mu teg lépp sama loxo ne ma yow sax yaay décidé lan la ñuy joxe trophée man aussi sama xalaat bu rafet mané ko dañuy dañuy jënd xar ku gañe ñu jox ko ko lool yëpp bu rek mu rafet. donc vraiment daal mënu la wax daal mais xam naa nit ku yëg nit en plus si euh, koor gi ak ay yeneen bés yi tamxarit yi daal na jàppale paay fii di joxe si jumaa yi ay nag pour tamxarit bi di dugg si kër yi porte à porte gaa yi di ñii di jot ay saaku ceeb ñii di jot ay yàlla na ko yàlla yërëm taxaare ko àjjana nit ku baax la. comme ni nga koy waxee rek bu bokk kul la woon vraiment amoon benn problème ni nga koy gisee noonu si télé muy fu football noonu la noppi woon doolu am yar am franchement parlé ba paré si bi ba paré man suma école football mom la ko tuddee am école football fi mo la Pape Bouba Diop si lu mu def ci Sénégal moo tax mu tuddee ko bon benen bi ñu nékkone fi di pratiquement ba ni mu démé Europe ni faté kenn baax na peut-être si gars yi ñu taxaw expliqué mo la wax sank euh, si benn euh, radio, que ne même koor da daan indi kër ku nekk saako ceeb camion yi dañuy dañuy jaar si koñ kër gu nekk dafa saako ceeb diwlin suukar lépp pratiquement lépp jàkka ji participation bi si daan ñëw. man mii jàngal naa ko alxuraan ci suñu daara ji ñuy wax ab góor gi Abdoulaye Ndaw radiyallahu anhu daan naa ko fa jàngal moo ak jarbaatam sax yaayam a nga France xale boobu may wax treize. dëgg-dëgg mu nekkoon ku baax ku jub ku mën a dimbali nit man mii sama xarita ndax fu ma mën a gis ci àdduna dana ma lëng gannaaw lëng bi dina ma dugal dara sans poste pour fàttali ma ne am nga loo xam ne def nga ko ci man. ñun bu ñu demee ba nga xamante ni nii daaw ñoom ay problème mu euh, euh, euh, équipement wala affaire demoon sax Bouba Diop moo taxoon waaw ñun mosuñu woon xam jëndal jour daal la waaw loolu franchement Bouba moom daf si def pas yu rëy quoi. waaw ba nga xamante ne bu daa ñëw di indi pratiquement ay matériels yu bëri may ñu ko xama jàpp si ASC bu baax ba pare loxoom daa aussi jog waaw nitu yàlla dëgg quoi parce que nit boo xam ne amaloon na njariñ askanam xale la boo xam ne bi mu juddoo kenn mësu ko atte fii il a toujours été sérieux discipliné jox ñëpp cër am teraanga aussi kër bu ne mu dugal fa dara ah, kër yëpp am ah, ñi yàlla bàyyeeg ñi yàlla bàyyiwul fu ne mu def fa alalam jàppale jàkk ji. et puis lu ma gënoon neex ci moom rester égal à lui-même c'est-à-dire musul disjoncté kenn du ko woon atte seeti ci ay bar, kenn du ko seeti feneen malgré li xewoon en 2002 ni mu doon àndal malgré succès il a su rester égal à lui-même et puis jàppale couver sa famille. yaru la woon rakk ju baax rakk ju am njëriñ ndax vraiment daan na contribuer bu baax ci suñu mosquée bi di contribuer kër bu nek daan na fa dugal ceeb diwlin suukar lu nek. si koor bu jot équipe bi AS defan daal na yëkkati ay ay millions la def ci équipe vraiment bu ñu daan dem final du ñu nama dara maillot blouson lépp regroupement tout loger équipe bi tout lu nekk daal def na ko ci quartier bi quoi xale bu yar woon la vraiment ñu ngi ñaan yàlla jéggal ko xaar ka àjjana. frère am yi ku si nekk dana la kër ku si nekk dana la kër nga xam ne kon bu wëni ku baax la. bu wàcc na ay frère am su nekk da la jënd kër loolu